Baay baa bi jinax bi da koo sonal ñeenti weer Baay Faal baa ngi wër jinax bi jinax bi mu ngi mel ne maay Baay Faal bi jinax bee baa ngi yóbbu jinax bi jinax bu saay saay la nag Baay Faal baa ngi koy yóbbu ak na ñeenti saaku enema yoo boole xanaa kon kuur ga diis na mu ngay jinax bi ndax jinax bi a gaaw da day rëcc mu ngay yóbbu jinax bi moom Baay Faal naan Amadou Fall seer jaay bi dem jëmmi ma seen ay ku dégg Baay Laal Faal bamba suñu bamba ba suñu bamba bamba keneen ku bëgg a bamba te babul murid de bamba Cheikh Fall babul bamba ja bamba jël bamba ku bëgg bamba Cheikh Fall sa bamba rek bopp xanaa Baye Fall ba mer ba mer na moos naan Baye Cheikh Moudou Moustapha Fall maam Cheikh Fall Baye góor loolu yëpp dina gaa ngi ne yokku rek Baye Fall baa ngay jot ak ak kañ boppam di ñëw ñu tax kuur gi ñeenti yoon si boppam fekk jinax bi mu daw na ko tey jinax bi jinax bi si gën a ko Cheikh Fall tey jooy ndax wéy rey naa sama mbokk Baye Fall wéy rey naa sama mbokk Baye Fall naka la ci ndax bi ci ndaxu Baye Fall.